marché bi ni mu demee amul luñ ciy net li ñëpp ko gisandoo commerçant période bi kenn ku ci nekk xam na ni xaalisam la yor bu jëndee ay bagages am ñëw toog jàpp njàmburam xam nga lii nii musu fee am quoi mais ramasse miin nañ ko mais lii musu fee am bi mooy première fois bi mu am fi. Euh, mënoon nañoo muñal nag bañ tabaski ba pare ñu def ko quoi wala ñu wax ñu ko avant nga xamante duñ jël suñ xaalis di ko def ci bagas mais bàyyi ñu bañ jël suñ xaalis def ko ci bagage yi ah di toog xama ñu dikk fii amul kenn koo xam yëg nga fi bi ñuy ñëw dañoo jékki-jékki ñëw ni dañuy dagg baas dagg baas jékki-jékki ni dañuy di arrière te période bi cas bi critique na critique boo xam événement bi ñëpp xam nañu cinq jours moo des cinq jours bu tey jógee te fi ni nii lii yi ñu euh, jël nii yi ñu euh, àndali nii tali bi bala ñu ko defaraat dina xëcc trois jours wala deux jours léegi ñu war koo defaraat obligé bu mu des ñaata jours léegi yow bu fekkee nga yor leb xaalisub jàmbur wala nga leb bagage jàmbur lal ko foo koy ah te nit ñëpp yemuñu fii booy ay xale doo fi nekk di góorgóorlu ñun sàcc ñu fenuñu xeexuñu xuloowuñu dañuy daan suñu doole fii tali la xam nañ ko bu baax a baax a baax Sénégal gépp xam nañu ñun nekkuñ ci yoon ci tali lañ nekk mais bu nekkee ci tali tamit ah nit ki bu nekkee tali boo koy jox avertissement da ngay bàyyi ba affaire bi des lu yàgg nga wax ko ko. waa sëñ bi. wala nga bàyyi ba événement bi passé nga dikk ni ko sëñ bi fii nga lal dañoo bëgg nga jóge fi. bu ñu ko waxoon wallaahi fii kenn du fi dem di jëndi bagage bu ñu waxoon lii kenn du fi dem jël sa xaalis di def ci bagage mais waxuñ dara dañoo ñëw rek dal suñ kaw euh, ni ñu wàcc leen tali bi gars yi wàcc tali bi gars yëpp fi ne dañoo muur seen i waaw jëluñu fi benn bagage nag mais gars yëpp dañoo muur seen i bagage toog marché bi li mu xew ñun ñëpp a gisandoo xëy nañ xëy dal suñ kaw am benn gars bu wax sànq nee na commerçant ñoo def seen gouverneur ñoo dem ci gouverneur de direct lañ def ci gouverneur demuñ ci maire demuñ ci préfet ci gouverneur lañ def direct wax ko ko gars yi xëy wàcc si marché bi mel na ñoom nekkuñ si ak seen nawe la yu kenn xamul dañoo sox ñoom ñëpp lépp ñoom la man fi nii mënu maa wax sama ñu rek ñu bàyyi ñu liggéey ndax li ñu yoroon yëpp yemale nañ ko ci ay bagage ndax liggéey rek daan doole rek lu ñu yore suñu njaboot nañ ñu dimbali rek bàyyi ñu liggéey Lamine Diallo moom la ñuy ñaan ndax moom yàgg naa baax mais nañ ñu dimbali rek may ñu ñu liggéey lu ñu bëgg tamit ñu wax ñu rek luñ ci mën ñu def ko ndax jabo do nga ñu taxat di daw nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañu bañu liggéey luñ bëgg. ko yobbu li ci laal lepp dañ ko lepp momuñu ko xaasu jàmbur la dañ ko wara fay yaay dégg fi lañu fekk ñu lal ñu lalli ñu ci loo xamante si nii teguñ ko fenn te nag lii nag wax dëgg yàlla dafa metti heure bu ñu lalee chaque événement nii lay nii lay def chaque événement dañuy laal chaque événement dañuy lalli fii ci fii du tali fii du tali boo xam ne ay oto dañ fi jaar wala sari fii biir marché bi la fii marché la fii du kaw tali fii du kaw tali fii xëy na am na tali de mais oto musu fee jaar saret mosu fee jaar voiture musu fee jaar amul kenn ku fi jaar fi lal rek lal moko taxaw tax a jug pour l'instant te dañu dag suñu juuti. ginaaw fi rek lan am bu joge fi fii dañ fi passé ñeneen ñew fi suñu morom nekk fi waye ñun amuñu leneen lu dul lii fi lan amagul fi ñu amagul nak dañ fi jappandi ba koroog ñu ba koroog benen solution di ñew waye nit doo ko fekkee doo ko fekk fi ni nga diko yëkëti ndax événement bi ni mu tollu ni ni ay quatre jours nga wara jënd xar wara défar say soxna yeneen yu sew sewaan yoy ñu yëkëti le fi loolu amul solution amul noy def yobu fenn waaye fii nii ñun ñu fi nekk di fi suturlu war nañ ñu fee mën a bàyyi ba événement bi jàll sax wala ñu avertir ñu lu yàgg yàgg waaye ñun tey jii dañoo jékki-jékki rek bett ñu xamuñu dara xamuñu nan la fay demee dañoo jékki-jékki rek bett ñu ñu bett ñu ñëw ak doole